حديث الروح للأرواح يسري وتدركه القلوب لا عناء arrêt sur texte taxaw seetlu ci mbind mi présenté waat ñu ngi tudd Abo sa Imam Yaali dëkk Touba di taalibe sëriñ Touba yàlla dogal ñu am wëllëre gu dox suñu digg ak Ibrahima Cissé te yaakaar naa ne mi ngi jaar ci soxna Bintu Thiam mi doon way mu nekk nit koo xam ne ku yàlla baaxal la xasida gi biñ koy way yëg-yëg moo tax ñu way ko cofeel moo tax ñu way ko nammeel moo tax ñu way ko waaye du woon bis bi du woon it dañ koy way ngir bëgg ne way nañ sëriñ bi déedéet mais ñoo toog am zawqa bi am yëg-yëg bi am sentiment bi jël suñu xalima daal di koy woy yàlla dogal tey ñu koy rendre hommage ñu ne kon jaadu na ñu teew waaye bu ñu teewee it dal di jàllale xasida gi loola mooy sabab lii xasida gi nag ku ne xam ne ne maam Cheikh ci arab la doon woy waaye ci wolof la doon wax ñun ndax amul ku nekk fii ci réew mi wala ci bitim réew te maam Cheikh jàngalu la ñu ne kon nañ ko way ñun ci wolof tànn baxaru kaamil ngir ak matam waaye jël xaafiyaat yi def ko muy laami ya ngir li mu làmbool ñu sàkk nag ay baati wolof yu xóot doon ca arabee ñu ne balaaxa am na mantiq moom loolu da ko digle ci way moom ñu tàmbale way wi tey ma soobu géeju xaliil mbaa lapp kaamilu getti xaafiyaatu ba saddi way yu ñu semmalu tey ma soobu géeju xaliil mbaal nappu kaamilu getti xaafiyaatu ba saddi way yu ñu semmalu sama dënn fees xol bi rembat ak naqaroo ku tiis maama xëy ñi bi tax na réew mi tey ñépp a koy gelu sama dënn fees xol bi rembat ak naqaroo ku tiis maama xëy ñi bi tax na réew mi tey ñépp a koy gelu tey ma xuus getti fi duus yi way way fi mbër mu rëy Cheikh Tidiane si ibnu Babacar abul aqilu tey ma xuus getti saddi way way fi mbéyar mu rëy Cheikh Tidiane si abul ibnu Babacar abul aqilu dafa kaamilu ka ñu jël dëxëñ ndambi xam-xam ak géeji ay xikam bënni maarifaam dafa jommalu dafa kaamilu ka ñu jël dëxëñ ndambi xam-xam ak géeji ay xikam bënni maarifaam dafa jommalu malikul muzaffaru irbili jàll way iraq la mu sos ba dem nga fi yeesalaat di ko tàntalu malikul muzaffaru irbili jàll way iraq la mu sos ba dem nga fi laat di ko tàntalu ana góor ga daan waxe xam-xam ak mbooti xikkamam di ñu leeralal alquran ak di ko rattilu ana góor ga daan waxe xam-xam ak mbooti xikkamam ana góor ga daan waxe xam-xam ak mbooti xikkamam bi ñu leeralal alquran ak di ko rattilu ana góor ga daan waxe xam-xam ak mbooti xikkamam bi ñu leeralal alquran ak di ko rattilu ana waaja daan dam bi xam-xam ak yulil askanam ana góor ga daan sonne ngir ñu ñoŋ duñu këmmalu ana waaja daan ndam bi xam-xam ak yulil askanam ana góor ga daan sonn ngir ñu ñoŋ du ñu këmmalu ana mbër ma daan làmbi xam-xam ak dotti way neex fecc naan aruud di ca jax lu rëy mbër ma daan làmbi xam ak dotti yu neex fecc naan aruud di ca jax lu rëy lu ñu semmalu Sénégal a ñàkk ka daan durus kurus di ñaan jàmmi réew mi sax teg ci daan falang ba du këngnulu senegaal a ñàkk ka daan durus kurus ak di ñaan jàmmi réew mi sax teg ci daan fa lang ba du wengalu Sénégal a ñàkk fi waaju rëy ñëpp ser di jooy dem gi tax na nit ñi di yuuxaloo gaal gi pantalu Sénégal a ñàkk rëy ñëpp ser di jooy dem gi tax na nit ñi di yuuxaloo gaal gi pantalu yaa ngi ni ci xel yaa ngi ni ci xol teg ci yaa ngi ñu yiir bu ñu fàtte rekk bisub te xee bu ñu rungulu yaa ngi nii ci xel yaa ngi nii ci xol teg ci yaa ngi ñu yiir bu ñu fàtte rekk bisub te xee bu ñu rungulu nañu feex fi yow nga ñuy tiñil ba ñu faax bu ñu fàtte bu tey bu ñu feex fa yow nga nu ñuy tiñul bu ñu far faax bu ñu tiit di raf nañu dal te yit bu ñu jengalu mam di moom ba tey suñu xuri xol nga ne faax mu fees Cheikh Tidiane ci xol dafa neex a neex leer na ku xelu mam ba tey suñu xuri xol nga ne faax mu fees Cheikh Tidiane ci xol dafa neex a neex leer na ku xelu nañu sant nag Cheikh Moustapha mu ngi nii fi ñun doom moo di bàyyi la fa seexandi ni du rattalu nañu sant nag Cheikh Moustapha moo ngi nii fi ñun doom moo di bàyyi la fa seexa ngi nde du wonnilu sant yàlla ak di la ñaanal maam leer di wéy di law julli sëlmal ci ibnu abdillah wa huwa akmalu sant yàlla ak di la ñaanal maam leer yi wéy di law julli sëlmal ci ibnu abdillah wa huwa akmalu assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu تدركه القلوب لا عناء arrêt sur texte taxaw seetlu ci mbind mi